lii seen problème àdduna leen dong la ñàkk respecté heure. salaamaaleykum. waaleykum salaam na ngeen def. yaa ngi jàmm maa ngi jàmm sant yàlla bu baax. barika téléphone laa bëggoon waaye nga aal ma daa am benn copain du may woo fii quoi. daa am benn malade ma war ko ko woo. ah daa tawat. waaw daa tawat bi métti non non teewul mu dong. ah noonu la code code bi code bi. loolu loolu laa def code bi. allo waaw. ah Ndiaye Ndiaye. Ndiaye Ndiaye. Ndiaye déedéet déedéet déedéet déedéet. non nit nit da nga ko respecté. di nga ma joxe heure boobu ba léegi maa ngi taxaw ci sa ci ànd bi la xaar boobu ba léegi maa ngi lay xaar. Hmm. nga yaakaar ne man man man man aw ma aw ma yitt yi ma war a dox man yi ma ko taxaw fi di la xaar yow. Doucouré xam naa ne am nga yitte damaa nekkoon ci ay mbir soxna si moo ma téye woon doon am ay mbir yu ma doon lijjanti loo. mais nga def ma si. waaw wax nga dëgg man naa la responsable la man noobu laa kenn du ma xaar lu ma deux minutes. loolu moom am na kenn werante wut loolu waaye dëj kenn du ko xaar nañ dem. nan dem ah, nan dem ah, ah defal ndànk balaa ñooy dem doo ko woo ba pare. xam nga xel xel xel xel fu ne lay génn. waaw ah, waaw te yow boo boo expliqué wu loolu loolu du demee noonu. gis nga ah. Eh, eh, eh, taxawal dugg rek. xaaral mu sonné xaaral mu sonné. lii lan mooy sonné dugg rek gis nga lii sonné xoolal li nga yor. ah dugg rek lii noonu la mën a dalee. <laughs> ban booy.

xam nga ne yow ñàkk nga fayda ba booy yi lëfal la xoolatil ma ko ko de yow man man mënu maa ànd ak yow quoi yow moom booy bi lëfal na ma waay non non dafa yomb waay dafa yomb waay man lu ma am mu def lu ma am mu def dafa yomb waay